dellu dañ leen di sargal parce que ñëpp gis nañ li ñu li ñu liggéey xam nga dafa loo xam ne defe naa jarul ñu koy wax parce que ñëpp teg nañ si seen bët dëkk bi métti woon na si wàllum politique tàngoon na ñoom yaakaar yëpp si ñoom la wekk woon xëj na am na nu ñu doon atte xëj na jàmm ji ñu am tey duñ ko am na atte nañu nag jàmm ñëw na si réew mi naka la continuer dem nañ ba élection yi jeex ñoom. le Yon may nous publier résultat résultats. Nous le Yon may ñu nous le serment président de la république le le Yon may ñu le président mais la ñu